internet yu africa global express tv dal len ak jam ñu dik ak yeen ci li gëna fess ci xibaar yi mbir mu doy war mo daal di am ca diwaanu ko parcel aseni ci parcel aseni goge nak ben way jo xamanteni nak dafa ne ab courtier la mo fa daal di lekk xaalisu juróom benn doomu adama ko par ba daal di nay tollu ci 800000 di ben million bu manqué ñeen fukki junne bu ñu sukkandiko ci la moyen mi ñu baxé bobu le xibaar mom nak dafa daal di am ben appartement bo xamanteni mu nga nekk ci unité 25 ci parcel aseni ci waxtu bobé nak mu daal di fay yóbbu benn client won ko appartement bi waaje ba mu visité ba nopp mu ne waaje appartement bi nag ñetti néeg ñoo ci daal di am bu ko defee rek mu daal di nekk 150 000 francs CFA ca waxtu boobee waaje daal di d'accord mu daal di koy laaj ci ñeenti weeru ko avance waaje ne amu ko ca la ko ne na ko jox ñaari weer yi fii ak une semaine mu lijjanti waat yeneen ñaari weer ya ca des waaje yëkki 300 000 daal di koy teg ca loxoo ma ba mu ko ko tegee nag ca la gëj a teg bët nga xamante ne rek moom moo di def katu ñaawteef boobee ki nga xamante ne nag moom moo di Moussa Nia di waaji nga xamante ne arnaqué nañ ko moom nag jàpp na ni courtier boobee daal dinay am ab complice ndaxte dafa daal di dem ci benn grand place ci lañ ko daal di joxe numéro courtier bi te ab courtier ni moom moo ko daal di jox numéro boobee waaye nag ginnaaw bi nga xamante ne rek daal dinay dem fa xamante ne nag moom moo di ca appartement bi ngir toxu ca la ca yéeme rek mooy dafa fekk benn waay joo xamante ne mu nga ne fa faax toog ak waa këram mu koy xamal ne ko appartement bi maa ko jël waa ji ko fii de man maa ci dëkk ginnaaw ba mu xamlee nag ne waa joojee moo ko daal di luye waxtu boobee waa ji fa mu taxaw di jàmbat rek fa la beneen doomu ko aadama daa di tëll di wuyoo ci turu Mariama Silva moom nag mooy xamle rek daa di ne kii di Balla Sall daa dina koy arnaqué daa di koy dóor lu ni mel yóbbu ab kopparam ndaxte moom nag dafa ñëwoon ngir nettoyer si bërëb ba ngir daa di fay tux si ci la ñëwee fekk waa ji di toog ñoom ñaar ñu daa di ànd dem ci police bu Parcelles Assainies ca commissariat bu police bu Parcelles Assainies boobee nag ñu doon déposé seen plainte ba ñu demee rek yoo xamante ne nag di door yobbu seenub xaalis koppar ga lim ba tollu ci 800000 francs CFA waral na nak ba police parcel Assainies juk taraxaw daal di wër waa joojee ba tek ko gëtt daal di koy indi ci commissariat ba ginnaw enquête yi mo ngay xamle nag daal ne xaalis bobé mom moko ko di lekk lu ñu koy topé moko ko di def li waral mu def ko nak dara waral ko rek lu dul mo moo di tollu digënté digënté ba nak daal di sori lool manam grossesse bu avancé la soxna soosee daal di am ci waxtu bobé nak mu daal ne dafa soxla won xaalis mu daal di waral mu lek xaalis su ko doomu aadama yooyee waaye nag mu ngi koy réccu Sassile Tembe ginnaaw bi nga xamante ni nag daal dinañ koy defeere ca parquet ba Sassile Tembe askan wi ñu ngi laajte courtier yooyee ba xam seenub liggéey duñu ko xoolaat